marhaban Fatou astu soxna fale ci Louga ak dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ñoo gën a fës yenn xëtu yéenekaay yi lu ñeel mbirum Astou Sokhna yéenekaay Le Quotidien mu nga xam le ni daal dina jurub jaxasoo ci biir santé gi ndaxte si jamono ji nga xamante ne jóoriñ bu ñu dënk wàllu wér-gi-yaram gi Abdoulaye Diouf daat na xam le ni Fatou Astou Sokhna moomee mënoon nañ koo éviter ci jamono joojee la liggéeykatu maternité wu hôpital Louga daal di banque seen yoxo boycotté boobu le bërëbu fajukaay seen di mi njaboote médecin wu Sénégal yi di SAMES ñoom itam di naqarlu bu baax a baax ay attaque yu ñu yëkkati di koy teg nekk ci loosu personnelu santé gi ya l'info yéen kaay nañu jóoriñ bu ñu dénk wàllu wér gi yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay dugal ay agent am ni ruba ci pàttuk astu soxna moomee ci Louga ndaxte ginnaaw bu mu di un décès maternel évitable libération daal koy felu ne ñu ginnaaw bu mu génne yëkkati ay kaddu te doon gëmloo askan yu ne paatuk astu soxna moomee du bu càggante ab mort naturel la yu njëkk yu tukkee ci enquête ya daal di ñuy Sambé di directeur hôpital bu Louga ba Walf Fadjri quotidien ne astu soxna moomee doon jéem a mucc ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu ab càggantew personnelu santé gi moo tax bi mu ñàkk bakkenam loolee moo tukkee ci rapport mission bu ministère de la santé et de l'action sociale yónni woon ci bërëb ya ngir ñu lañ ci dëggantaan ana lan borom këram ak Adji Sarr ci mbirum suite beauté yittal na itam yéenekaay yi libération ne ñu seen janok doyen des ba ci fukki waxtu ak benn lañ ko dooree ci suba ba ci ginnaaw lañ koy doog a keppa suñu naatangoo yi libération ne mbir yombuñu woon ndaxte pàcc gu ne dafa doon mooy ci position ci teewaayu seen ay avocat ak représentant bu parquet ba ginnaaw bu ko convoqué ci bureau juge d'instruction ba ci ab confrontation ci diggante Makande Khady Ndiaye yéeni kaay bés bi le jour ni kii démb Adji ab tertu ju mucc ayib lañ ko tertoo ci tribunal ba ginnaaw garde du corps am moo ne woon staru bés ba ni kii démb waral yéenekaay bi xaatim ci xëtam bu njëkk ne aji star laas yéene kaay ne Adji Sarr ni ki démb daa dëkk ci tribunal bu ndakaaru comme ab estaru ciné laata mu fa yëkkati kaddu moom mi ji ñu Ousmane Sonko ne daka sàkku ne pare na ngir ñu dem ci procès les échos ne confrontation bi ci diggante Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram ni ki démb tàngoon na lool ci jamono joojee nag le témoin quotidien mu ngi dikkaat ci njeexitalu embargo wu CEDEAO fale ci Mali yéene kaay bi ne bari na lool ay musiba yu mu jur ndaxte lu tolloo ko junni ak ñetti téeméeru camion wu Sénégal ñu nga jamono jile tagatembe ci frontière diggante Sénégal ak Mali ndar kepp ak wàllum politique ak Sud Quotidien mi ñuy xamal ni assemblée nationale ni ki tey jilee la ñu fas yéene sëgg ci yokkutek li mu député yu fas yéene jóge ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom dem ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar jàngeen